assalamu mbokk internet 17 ans Dakar Actu ñu ñoo présenter leen édition spéciale bu jëm ci mutinerie bi amone fofu ci maison d'arrêt et de correction bu nek rebeus ñu gis né démb garde pénitentiaire yi ak détenu ñu amone nañu jàmmaarloo xex am fa am ku ci ñak bakanam am ay blessé yo xamné ci côté détenu la comme ci côté pénitentiaire yi ci colonel Daoudou Diop direction bi direction administration pénitentiaire wote point de presse mala tamuy tambali chargé de com bi nga xamné moy mooy Mbaye Sarr bu mu ñëwee dafa né laaj ak tontu dox ci ñom ak taskatu xibaar yi bi commencé colonel Daouda Diop limu yëkëti ci cadre moy xamna ñom prisonniers yi li ñuy ñaxtu moy longue détention yi ak lek bi dekk nekkin biñu nekk fofu d'accord nañ ne li ñuy ñaxtu ci seen droit la ñu nekk mais nenañ nañ jotoon nañu am ben réunion bo xam ñom chef de chambre yi ak régisseur bi nga xam mo nekk rebeus waxtaanon nañ ci ba démb 14h lañ waroon gisante procureur de la république bi nga xam ne détenu yi ñoo mais bi 12h jotee ci la xex bi commencé am na nag état bi conscient que ne ne lii am nii euh, arrangé wu leen baaxu tim te ñoom ci seen droit la ñu nekk donc mesures yi nga xam ne lépp war nañ koo jël dinañ ko ci jël ba mu mat sëkk ñu delluwaat tey ci quartier bu Rëbës dem prison 100 mètres am ci ay réaction yu ñu jël muy parents yi nga xam ni dañoo ñëwoon seet si seen ay doom am na ci koo xam ne mu ngi tudd ndey Anta Gueye moom nee na ki mu fa seet si doomu bàjjanam la mais def na fa ñaari at yoo xam ne ba tey kenn waxu ko ci fan la féetee dañu ko mandat de dépôt woon boobu ba léegi mu ngi ñëw di ko seet si ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Camara di coordonnateur mouvement Y en bu Pikine am na lu mu waxaat ndaxte moom ancien détenu la woon xam na li nekk la bés dellusiwaat na ci li ñu nekkee ci biir foofu lekk bi ñu lekk chambre yi toilette yi nu ñu fa nekkee lépp wax nañ ko ñu gis tamit ki nga xam ne moom fa la dëkk ci Rebeuss nekk fi mu dëkk ak prison bi mën nañ ne moo jàkkaarloo

dem bañ na mars dañ ñoo arrêté dem foo tollu dégg woy yaay yooyu bi ci biir 100 bi foo tollu di ko dégg bali tuy tuy nit ñi nelawuñu ba bët sët sonnoon nañ ci gudd guddeeg bëccëg 5 heures du ngay yeewu boo ñëwee da ngay bokkatu ci suufu oto nelaw wala nga romb buntu kër jàmmu lal loolu tamit neexut rafetut mag sàllu nit ñu dimbali jugé doomu jàmbur yi fii da ngay gis sax ku fi ñëw ñaan ci jëkkëram baat. da nga gis nit bu feebar bañ teg ko ci puus puus wala nga gis gumba bu ñu yóbbu hôpital te du tere ñu bakoo fii lépp la ñuy gum dof sax de mu ngi ci biir kaso bi di lekk ci duus bi téeméeri nit ci benn néeg si ngay def lu la neex moment bi mënuma xam ne moo ngi ci jàmm avant lii di am damay ñëw sax ma xam ne mu ngi ci naqar moom mooy ñëw na ma toogal ñoo ngi ci jàmm te yàlla xam ne duñ nekk ci jàmm dangay new 30 minutes ñu fëgg la keneen nelaw trente minutes loolu yoon la benn tap benn néeg nga def ci ñaar fukki nit ak juróom-benn xoolal sàmm trois ñaata nit lay def ñi téeméeri ñaar fukki nit ak ñeent man damay dugg ci whatsapp bi damay dugg fépp ndax instant yi man daam lu ma metti ndax doomu jàmbur bi ñu rey nan lañ koy waxee ay parents ñu la rayee dañuy ñëw wax sa yow wax ju neex wax ju rafet du sedd xol buñ la koy buñ la koy wax dalay metti nañ atte doomu jàmbur yi man l'essentiel daal maa ngi ñaan ngir yàlla yunt bi bu fekkee ñoo ngi may dégg wala ñoo ngi may seetaan Macky Sall bàyyiwuma ci premier ministre bàyyiwuma ba ci Youssou Ndour bàyyiwuma ci kenn na wax ak ñi nekk ci kaso bi ndax 5 heures du la ma sama yaay yee nelawul ba bërset dafa am crise cardiaque démb danteeg lañ ko yóbbu man maa ngi sama bëtu démb yi ba léegi nelawuma. ñun dañuy jàpp ne rek du kenn ku dul suñuy dirigeant ñoom kese la du kenn parce que lii nii dafa yàgg. njëkkoon nañ fi def grève de la fin man maa ngi woon foofu maa ngi woon chambre 47 man mii di wax ak yow ba may génn ñu jox ma lettre boo xamante ni ñëw naa ba si yenn autorités yi présenté leen ko mais ba tey defuñu si dara mooy grève de la fin bu defoon bi mu metti woon trop ba maître Sidiki Kaba si boppam ñëw fi promettre leen ne dina si def ay jéego xam nga mais ba tey ba loolu ba léegi gisuñu dara. léegi nag bu lii amee ñun dañ jàpp ne ñoom la rek parce que lii nii munoo jàpp ay nit tëj leen si ay kaadalan ay dorog lañ wax ay agression ay leneen ak leneen te ñun ñoo ngi gis ñuy autorité yoo xamante ni ñoo ngi fii Sénégal di lef leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñoo ngi ciy teg suñu bët mun naa si tudd ay tur bu la neexee waa kon jeex na kon si yow la xam nga loolu yëpp léegi ñoom ñu nekk ay nit am ay papa am ay yaay autorités yu nek fi am ay papa am yaay ñom ñu gis ñom ñuy traité ñoñu ak ñu croiser bras mënul su aussi du bon mais dañuy comprendre peut-être conditions de détention ñoy metti fofu dafa parce que nit aussi amna foy c'est ça qui explique cela donc ñu ko mettre lu té ñu ngi ñaan vraiment que le ministre de la Justice euh, mu toutes les mesures et dispositions nécessaires à faire cesser cette situation-là qui vraiment cause préjudice à tout le monde les avocats la, justice de façon générale mais également les concernés eux-mêmes les détenus Puis moi, je bi may détenus parce que problème a des répercussions donc audience bi waroon na commencé mais ba léegi commencé gul. nit ñaa ngi añu démb yi ñoo ngoogu ñu teg ko foofu añu barki démb ñoo ngoogu teg ko foofu añ bi ñoom ñoo ko bañ lekk nee na nañ leen zisee ñoom dañoo grève nee na lekku ñu naanuñu lekku ñu naanuñu nee na ñoom nañ leen zisee nañ leen zisee ñoom loolu lañ bëgg nit doo ko jël rek teg ko ci benn bërëb. nit boo mais mala boo ko tegee boo ko yore doo ko teg ci benn bërëb foofu nga génnee nguunu bi bale ko lay ko xëyaat suba jox ko lekk jox ko naan sangu ko waaye booy sangu rang la booy dem dus rang la visite rang la répp rang la xaalis sax boo ko dugalee huit heures ci suba huit heures ci suba la koy jotaat loolu yoon la da nga fiy dugal dix mille nga laaj ni bi jotuma ko noonu lay lekk bu baax ñoom ñoo pour nga jox leen ko lekk yi baax ñoom ñoo koy lekk boo defee ginaar pour sa détenu lekk duñ ko lekk waaw waaw dama ko fii ñëw ne ko diw jot nga mu ne jotuma dërëm léeg yére sax nga jëndal ko kilot parfum pat boros ñampe saabu dàll boo ko laajee mun la jotuma ko. benn lu ñuy jooy mooy benn affaire mooy tëddaay bu metti bi beneen bi mooy ñu téye fa ay at yu bëri duñ la atte loolu teguñu ko fenn mais yooyu noonu yëpp se mais mais mais mais c'est normal dëkk bi dañoo toll foo xamante ni tey ku si nekk da nga am sa droit boo xamante ni am lu la metti nga manifester ko. nekk prisonnier taxul nga am lu la metti te doo ko wax beneen bi encore di waxalaak yeneen prisonniers ñoo xam ne ñoo ngi si biir tàmm nañ saa ay ay prisonniers jógee di xeex benn affaire am ñu rocceeku si suuf di daw ñooñu ñoo ngi wax ak ñoom nañ xam ne ni affaire bi ñoom ñoo ko mun a faj ñoom prisonniers yi nekkul ay droit de l'homme wala keneen ak keneen munul nekk ñoom seen bopp ñoom ñoo ko mun a faj beneen bi encore ñoo ngi naan benn nit moo dee benn nit moo dee loolu amul. loolu amul parce que ñeneen ñoo ngi naan ay ñetti nit ñii ñoo ngi naan ay cinq personnes nañ ñu wax lu leer le temps passé fële chambre neuf daanu woon na fi maa ngi woon chambre neuf ah lépp ma déggoo daanu woon na fi si kaw détenu yi dal bi moo daanu jour boobu yàlla da doon def man maa ngi waroon génn si guddi gi man lañ ma waroon génnee maa ngi jóge astafurlah maa ngi jóge tribunal ñu def enquête ñu libéré ma ma war a xëy si suba gi ñibbi ma fekkee loolu ñoom ñu ko doon nëbbu man maa génn génnee ko si presse mi Cheikh Oumar Camara moo ngi si média boo demee Walf di nga ko gis lépp lépp a ngi fa dégg léegi nag lii lu ñu bëgg mooy ñu wax ñu ñu dee ñaata nit la. avocat yi sax léegi dañuy lekk xaasu ni ñi yërëm bi nekk fi avocat ñaar fukki junne juróom lañ ko fay ba léegi buy dem enquête su ma ne ko kii dem naa enquête xam nga lan la may wax yëg naa ko y' a ne ko dem da damay dem ba benn moment dund bi dee sax ma ko gën a ko ndax kooku yirim la yaam gaañ na papam gaañ na man moom ñoo nekk ci kër gi day dem di jaay li yére ay fëgg jaay lay jaay jamono ji sama yaay day mujjee yelwaan lu ñu lekk te moment bi fi mu daloon àtte xeex depuis combat Zarko ak Siteu Zarko looloon supporté boo demee que ñoom yaayi Zarko yaayi Zarko danaan la Zarko nekku fii ju ba ma fa demee dama ne ko Zarko moo tax ñu jàpp sama doom bàjjen waaye bu nekk woon Zarko ca fëgg jaay bee la yem sunu koñ caare foo dugg ne Ahmed du tux du naan mun naa kaa seedeel lii bu ñu taxawoon fii ba yóomal xi am dama koy seet du tux du nañ àtte doomu jàmbur yi gis nga ñi ma noon ko sànq kooku yaayam bu ndaw la sama yaay bi sama yaayam bu ndaw la sama yaay moo ko yar néega mi ngi noonu kenn tëddu ci bañ koy jàppee ba léegi kenn tëddu ci sama yaay day war a nelaw du nelaw day fanaanee jooy ba bët sama yaay ci yére bu baax amatu ko ooram yeeg yëpp am na fi ñaari at deux ans mu ngi fi deux ans man maay ñëw cinq heures du matin laay yeewu nii laay def duñ la may sax salaam ak pour nga jox sa dutu nii loxo déedéet dañuy yaakaar ni da ngaa yore liggéey da yaakaar ni liggéey da kaa yore boo ñëwee ne diw la ah lan la la. mang ci jàmm loolu lay wax ba nga xam ne kii nekkul ci jàmm léeg-léeg da ngay gis sax dutu ni bu xaw a gaañu ni su ko gisee da koy nëbb dañuy dañuy gaañoonte ci bi dañuy xeexante ci bi tëraay bi mooy metti seen biir da ngay gis comme ba comme néew bu tëdd nga koy tëddalee noonu nit tamit nag neexut nañ àtte doomu jàmbur yi. Rebeuss laa juddoo ba ni ma dee nii j'ai 57 ans mais démb dañu vivre situation boo xam ni vraiment c'est anormal parce que boo jàppee exemple 2000 personnes tëj leen ci benn prison jël di garde ñu war leen garde ñoom ñëpp loolu jaaduwul ñi ay prisonniers nañu mais am nañu ay droits l'État est responsable il faut le ministre de la justice moom ak directeur pénitentiaire bi ñu waxante gaay yi dembe gis nañu ci journée bi lo xamné ay mag yo xamné dañu am 70 ans 80 ans di yuxu parce que dañu dégg ni sen doom déna na amuñu su leen leer fi ñu nekk ñun ñi dëkk rebeus dañ leen yërem nga xol benn nit bo xamné ne exemple da ngay euh banlieue nga ñëw indi lekk des fois da ngay ñëw do lekk bi du dugg garde day bañ refuser l'équipe bi du ko mais jaaruwul yooyu jaaruwul il faut état bi jël ay mesures ñii ay prison nañu mais duñu ay jaam ay nit na ñu bo jëlé ben prison tëj fi 2000 personnes amul douche amul toilette duñu lek duñu nan mais yooyu jaaduwul droit de l'homme si à chaque fois ñu kaas ko à la télévision mais ñii ci mënul dara état bi ni muy sauvegarder intérêt ñek ci mbéd bi non la wara sauvegarder intérêt nekk si biir parce que après tout ñii ay nit na ñu prison bi dañ ko wara désengorger à l'époque ñun fi ñu judo, mais daawul am lu ëpp 300 personnes mais légui 2000 quelque la am d'ailleurs euh, directeur pénitentiaire bi le job la néna na démb jot nañ si ay nit jobu ay quelque mais wañi nañu ay nit il y a 2000 personnes ba légui ce n'est pas normal il faut état bi jël responsabilité am ñi fi nekk mu def leen ay nit ay nit nañu ñuy lek di nan yaa ngi doon ci ba paré amul abutu sécurité parce que bo jël exemple 2000 personnes à ce qu'il paraît dégg ñu né chambre 10 400 personnes la fa chambre boo xam 10 mètres la naka la fa 400 personne mën a fanaan du ñu tëdd par am na ñoo xam dañuy taxaw ba suba am na ñoo xam dañuy toog ba suba teel bu ñu bëggee dem toilette du ñu dem ba pare nga jël exemple 2000 personnes jël 10 garde 10 garde pour ñu garder leen mais loolu mais jaaruwul mais jaaruwul nañu mettre dans de bonnes